yéen si jàmm ci li ngeen nekk li mu yor lan la. waaw. waaw kon bisimilah kon nag yéen sama mbokki jigéen yéen ñi nga xam ne yéen koy toog chaque jour. Hmm. di ko jox jigéen ñi. waaw di ko ah. jox góor ñi. xool leen fii nga xool liñ ciy liggéey. Hmm. ñu mënul sa buwaay. Hmm. ñu dem na fii. waaw gis nga. gis nga Adja waaw xool leen bu baax ubbi leen seen bët yi ngeen xool baax. waaw. Ah. gis nga beneen nañu nii. waaw ah, gis nga de. la ilaha illa ñii dañ koy jàppoo ñun. xool bu baax. gis nga waaw. gis nga gis naa ko yaa ngi ko xool baax. Mhm. waaw xool leen xool leen fii. xoolal lii rek. sa xool nu mel. gis nga gis naa ko waaw. yéen ah, ah, a koy gis baax. waaw. naaj naaj. Amady Ndiaye jox ko foofu benn porte. jox ko foofu benn porte. xool nu mu teel a mel bant bi. waaw ni gis na ni mel bant bi. waaw tegal nii porte bi tegal ma nii porte bi. nii rek fii. porte baa ngi nii daa weexoon tàll na. waaw nii rek porte bañ gis ko gis ngeen. nii rek porte bi mel na. waaw yéen a ko gis ko. xoolal. couleur bi ñu soxla bi moo ñu koy jox. yaa indi waaw yéen sama jigéen ñi laay waxal de waaw sama mbokki jigéen ñi yéen laay mhm. lii baaxut ajaa baaxut ñun moom la ñuy liggéeyee léegi jëndatuñ verni waaw gis nga ko jëndatuñ benn verni ñun ajaa la ñuy liggéeyee mhm. waaw bu baax nag gis ngeen porte bi gis nga ni mu xonqee waaw couleur bi ñu soxla ci porte bi moo ñu koy jox mhm. waaw gisal ni mooy suñu wér-ne léegi ñun waa ñun waa Mine Seboa yi. Mhm. Adja la ñuy wér-ne Adja mooy suñ wér-ne. jeex na leer sax. waaw ah, gis nga ko moo dàq wér-ne. naan ñu ngi macha allah xoolal lii. xoolal lii. lii nga def si biir. yéen sama mbokk jigéen ñi laa koy wan de gis ngeen. nga def si biir nag. waaw lu def ci biir nit. daa indi. dimbali leen ma ngir yàlla ngeen bàyyi Adja bàyyi leen Adja. de.